man a nattable ci moom lu ma wax ci moom it loo xam ne dama naan rekk dañu ma ko wax waaye xaw ma ko ndax koo xam ne dinga dund te dinga dee sooy wax te naa gëgoo dafa goo war a wax luy dëgg ndax ña la xaman jeexaguñu kenn ku nekk alal ja nga am soo dee joxe mm-hmm. ni alal saxe ci xol mm-hmm. soo dee joxe sa alal te jox ko ki la doy mm-hmm. suñu la ko laajee di nga xam nu mu demee Cheikh Ibrahima Fall la ñu ko daan jox la ca gën a bari lu ca bari daanaa ko fekke ndax dama daan xëy di fa yendu ndax sama taaw bàyyi sësal rëkk ci moom akketo appu ci ci sama ndey mhm. cheikh malou fatma sa sën rëkk ci moom ba muy weer karoot moo koy wommat di sol foxe bu ànd ak faram ak daal di yeggali daal di woo ganti di murit mu nangu murit ga daawut war ca kaw watiiru sara fas ba daawut war ca kaw karoot ga da daan wommat cheikh ibrahima ca kaw aku njaboot am mooy daw lan nga fas wa na jàpp ca sikki mu fas wa ca buum nga nekk ca sikki mu fas wa di daw dëkk ak dëkk wax na ma ne fexe ne njaareem ba tolloog cene ba foofu yi saxaar daan taxaw te mu mujj def daar bu ndawan miskitam nday jooram wii foq tànk bi mën a tuta mag mhm. mu di ko tàllal di ko sànni di di di tëbee bi bu mhm. de bu bu sànnee tànk bi mhm. wadd sànni ak càmmoñ bi di ko sooxaale di def ak façon ba yéeg raayu kees romb kër ma maa lay ji dikk ci kër Cheikh Ibrahima Fall fas bi taxaw Cheikh Ibrahima wàcc ba ndox من بنك تانك بي هي وفشوي تخاف عن فشوي في في منتخب بابا تانك بي خاون عن شد وانا ما تجي تخدمون كو بنك تمون كو وخ نينا بايا مشيخ ولا بدير نفك ويتخاف نقول خنا هذا غير نقول شواجي نعم انا كنت ما كنت دلال رك نبشما يتي نخ باني مخامنه تانك بي دفا غايو mu ne man defe naa ne loolu rek la fi bàyyee ne ma ne ko ah loolu rek bay faal moom mu fi bàyyi dama ko doon noppal ne mu dox ma gannaaw jàpp ci mbagg bi féete tànk bi bés ko ne ko fekk mu jëm gannaaw miski bi ne taal la dellu ma làmb tànk bi man ko donc ma wax mat fas wi dem yee wi nee na loolu di def naa ko mhm. ak Cheikh Ibra man mii tam mhm. am naa sama picc mu tudde jaxaay mhm. sama taalu beeg baay bu ñu ko tuddee mhm. war ne ko ci garab gu ñu wax ngéejaan ca mhm. sunuy tool fu ñu wax géejaane it mu ko njaareen ma di ko yar di ko jox ndawal ba mu toll ne seq gu mat di dàq ganaar yi ma takku buum ci tànk bi aw saga wu di bañ mu naaw ma ñàkk ko sama nijaay is tailleur Serigne Fall si lu ma laafiya may def bu ma xëyee yeew ko dem yendu ji su ma ñëwee jox ko mu lekk bu ma demee ni gis nit ñi lu ñu gën a baax de di ko jox Cheikh Ibra lu ñu ba mu am solo ñu kër gu mag jox Sëñ ma xëy leewu ko ak sama mbàttu ci nu laaxul caaxaanu koraay bu am ndawal boole ko dikk fekk nit ñi ram ma ram ku yaar ci sama kanam may mu ñëwee danu ba ma sës mhm. Cheikh Ibra tiim ma ca palanteer ba jàkkaarloo gaaru njaareem palanteeram mhm. bi ci njaareem daa jàkkaarloo gaar ba mbedd da cee jóge ba dugg ca biir gaar ba mhm. da ko daan ubbi tiim nuyookat yi duñ ko jox mu jàllale lenn lu ci ne am ku ko féetewoo di ko denc bu dee fas bu dee jur bu dee takkaay bu dee xaalis buy lu muy doon lenn lu ci ne Cheikh Ibra da ko wuta leen ko ko féete woo koo xam ne moo amee loola may gis loola xedd ma ne joxe tey joxe lu ma moom ma yëkkati ko tàllal mu yóotu ko ngëb ca tànk ya mu yëngal dongo ya mel ne ganaar gu ñu yële mu ne ma lii nu mu doon ma ne ko jaxaay am ku ne xool am ku ne jege mu ne ah te ngeen ne teg ku ne ne cel mu ne alam dañu ko dee laaj borom mën a wax waxam dara du ko ci mën a gën a dëggu am keneen ku ne ah xool leen tànk yi xool leen sàll i kii kay jaxaay la kii kay jaxaay la mu daal di woote ma baarak ma baarak wuyu mu ne tëye ko te tëye ko mu tëye ko 보는 na 뭐 셰프 예 mini chef bu ndaw la woon booba Cheikh Madou Faat maa ngi koy jàngal te mën lu bari ak Ablaye Ñaxit Diop ñu di ko wax Ablaye Yàqin nañu leen woo dénk jàppandi na ak lu ko defal kër li tubaab tuddee kaafkat laa wax waaw ba baax rek lu baax ci moom mu ne ko loo ko tàmmul mu ne ko lu ñoree te nañ ko jox ba ndax xam nga nu mu koy lekkee mu ne Fall noo digle. mu ne da ciy dëgg. ma tagg sàll wi. mu daggee lu mu dagg te man ko woon na. bu jeexee mu sëggaat bu reggee bàyyi bu soxlaa dikkaat. jaxaay jat ne fa. ba ñëpp xam ko. Ablaye ñaxit dikk jox ko doomam maam Seydou Diop. boole ca ñaari baa. ak juróom-benn njëgamaar ni ko dee leen ko liggéeyal. Ismaïl Ka mu ne ko del yelwaan so del di ko jox bu mu laaj sëñ bi dara dama man koo am soxna su tudd yaay tabara mu boole ko ca ne ko del digal ko ne yun du ñuy liggéeyee dama ko jaamuloo Cheikh Ibrahima ne ma ne ma ne ma ne ma doon def man bàyyam dama doon liggéeyal Cheikh Ibrahima jox ko sama bopp ak lu ma yaakaar di déglu ndigalam loolu itam teewee naa ko fa ak leneen loo xam ne lii nit am na ko te xeddi ko te defar ko ba mu mat a xool mhm. bu deew nag mhm. bu deew vache mhm. bu dee gëléem lépp luy addiya loo xam ne nit daana ko defar ba mu amal ko njëriñ rek daana ko andil Cheikh Ibrahima du ñu commencé mu jàll lay jox sëriñam daanoon def kuy digle ragal yàlla daana def ko santaane jaamu yàlla daana def ko fonk lu liggéey mhm. daana santaane jébbuloo wéy ci ndigal mhm. daana tere mhm. ak jaxasoo daana tere tudd sa morom mu jaam fu mu nekkul daana santaane toppante na ngeen ragal yàlla te jaamu ko na ngeen sax ci ndigal te moytu tere da ko daa wax donc yow ku jébbalu mhm. tey ku yees ñu mhm. dénkaana la ci daara mhm. fukk ñu mat mu seet ka fukkeel juróom ñeente ñu def ko jawriñ par fukka daan nekk daara fu ñu am sabes dénkaane man ñii ngeen di waxloo nag te addina di ma dégg denc naa ñett jigéen ñoo xam ne ay jawriñu ma leen yoroon yoo xam ne kenn ku ci nekk bu ma waxee turam am na ci ñoo am ne seen doom a ngi dund mm-hmm. am na ci ñu seen i maam seen i sët a ngi dund mm-hmm. ndax mm-hmm. ci kër ga ay aro te bu ñooñu bu ñu naa mayal Cheikh Ibra may wattu si sama tool bàyyi ba sës ca daara ja dama daan ñëw ci mbooy yi ñu mbooyal di leen wàññil fas yi ñu jatam ak maam yi pour bañ ñu jàll ci lu ñu war a yàq ko su ngoonee ma ñibbi bu subaa ma xëy si ah أبدا خلنا شربنا غير لا أشكر له ده خم من تبع شو خم ده خم هاي خم من من الرق هي فعل هاي بهاي ما هي واحد يروح بوكور شنو هي الرق سيدنا بوجاي ما دي واحد يروح بوجاي دك جاري baya mda ka jabi mo madun mi yur shahira raqaya mi yur baya mda ka waqi waxila ñu suul bàyyam nanu loqee waxila ko sëñ Mor Tall tabax armeel ba nga fa sëñ bu Njaay nga guy texe Cheikh Ibrahima gi Touba ñaari magam mhm. ñu ngi biir Touba mhm. bokk ak sama maam jur sama ndey benn tabax mhm. waaw kee Birame Sele Fall la tudd bokk ak Cheikh Ibrahima benn baay kee tudd Madou Fatma Demba Kono di baayam. Mm-hmm. Demba Kono ak Madou. Mm-hmm. seen ñaari baay bokk benn baay. Mm-hmm. loolu la xam ci Cheikh Ibra. ak gor la. géer la. ab jullit la. ab muritu Serigne Touba la. ndax nee na bu ñu dendalee murit ak taalube. man taalu man damay jàpp murit. ndax mu bëgg borom bu ñu ko doon pêché. borom mu bëgg na diis. ndax nit la mu bëgg ko ko ko wax. taalube murit nga. la murit bëgg ko ko ko waaye muritub taalube nga. déggagu ko. moo tax mu ne. man muritu sëñ Bàmba laa am muritam laa. li aman na. bu jëkk. waaye amoon. tey nag kenn ku nekk. ba ngaa am koy teqalee ak waa jeeg waayam waaye dootu yomb. ndax. Bushido akmo muridi bai fana bai bai karak lañu xam ci qualité murid sant wu ay man sant mhm. boo ne murid nga day na bai fat nga am lan nga mhm. boo ne wul bai fat la ñu ko bai makke nga mhm. boo sante jaxate sëñ Tuuba di Cheikh Seri nga sant loo Cheikh Ibra di Cheikh Seri ngay bai fal nga sant Bousso sëñ Tuuba di Serigne mooy makke makke ñoom ñëpp nag it Cheikh Ibrahima wëlbati ko moom it sëñ Touba di sëriñam mhm. ñu bokk di murit mhm. di taalu bépp mhm. murit taalu bépp murit nag moo gën a wér muritu taalu bépp <laughs> ci waxin Cheikh Ibrahima loo tax mu ne man muritu ma gën a bañuma lee nag ndax ñay wax taalu bépp sañ Bamba laa waaye taalu bépp kii sàkku la ki jaar ci yoonu jëm ci yàlla te bañ a dëpp nag bis yàlla dàq dem àjjana. jërëjëf Cheikh Ibra guddul ba ne sorox. gàttul ba ñu naan xaar naa ma dëkk bi nit la. waaye bind ba. du xiiwam. ndax koñ magam mi ak mii boo ko seetloo. mat na soixante-dix centimètres. su ci tegtal. ëpp na cinquante. te mbari làmba yi ci di nit cinquante ci yaxu mbagg bi nga yaxu mbagg bi di ci ëpp du bari. waaye Cheikh Ibra ëppale na loolu. yéen a ngi boo tëyee nii ci yéen ñi. ci kaw rek yéen am lu war a feeñ ci kanam ndax sax. jëmmam daal. ragal nga ko xool. lépp. ndax defut bopp neen may xool kàngum boppam. daf daa kaala woon naka jekk. kaala gu ñuul. gën a bëgg palmaan. palmaan waaw. kon palmaan la doon solo lu ci moom la gën a bëgg kaar ak palmaan. mbubbum palmaan. daana ko gën a bëgg. daana def kuy digle ragal yàlla ak jaxasoo. kenn mësut a ñemee jàll ci kër jigéen. ba muy dund. mu ñëw wala nga wuyoo fa. du genn góor ko mës a daana digle ndaw jigéen ñi mhm. daana digle dem tool mhm. daana digle liggéey mhm. daana digle ragal yàlla daana ko digle dawul tere koy jàng lépp lu xeeti jàmmu yàlla kenn bi kenn Cheikh Ibrahima lépp lu tax rek nit di jullit boo ca nekkee Cheikh Ibrahima dana def loobu man ko waaw Cheikh Ibrahima mhm. ni mu nettali mhm. mm. ba mu jógee Mbàkke Kajoor mhm. ba mu jëmee Mbàkke Kajoor te jógewu cee da caa jëm bis ba muy dem Cheikh Adama Gaye la àndal ndax fekk na sëriñ bi bindub lettre yónnee ci sëñ Bamba Sylla Cheikh Ibra tàggantiku fa mhm. fekk ma nga ci sëñ Bamba Chely booba ndax mhm. Bamba jëmu tudd mhm. ak cax ba mu at na temoon nag sëriñ Tuuba ba mu ko nee ca lasam ca la mu nettali Ibra Fall dala jël ca keef nga nu wutante ma dala ji ca baaba nu wutante Cheikh Ibra nekk mu kàllaf xam ne dig ba jot na mu di ko wut defe ne ci mbëri làmb yi day am doole ba ku mu fab sànni la nga dammatoo te koo gis ci ñuy bëri te koo gis ci ñi ñuy soow ci dayo ba dem ci ba ma lay ba fekk ko faatu muy wër armeel ba leer ga defub kuttumal rek mënta mënu mënu ci àgg lu mu mhm. ba bis mhm. magam mhm. ñu ñoo ma du Fatma ki jur sama ndey ne ko yàpp sama wuyu kon mu ne ko tey bi nga amee dam sa ji nga dëkkee boo ko <laughs> ji nga dëkkee ko gisee loo koy doyee ko dama bëgg ubbi ji buntu ba jana rek ñu ne ko dangaa bëgg a dellooti ci ndof <laughs> la taxat ñepp ñu bari tudde ko ndof ajjana dafi neex ba nga ko ubbi mu ne ko koy dàq jaar ba mu tàbbi ci pax suñ la nee lee nga doon dàq looy wax tàbbi na ca pax ma kenn du tàbbi ci loo amut bunt <laughs> booy root ba sa baag tàbbi looy wax <laughs> baag ba daa tàbbi mu teen amul woon bunt baag du ca bu ñu lay ñaanal boo dundee boo dee loo gën a bëgg yal na nga <laughs> dund mm-hmm. mm-hmm. ba boo dee tàbbi ajjana la ñuy wax ñuy wax kon ajjana nag moom daa am caabi su ko ñu ca war a duggee mu ne ko caabi jëlaa bëgg a xam mu ne ko ku ca bëgg a dugg da ngay xàcceeg iblis jëndeeg yont bi oh. topp ci ku la doy jox ko sa bakkan di wéy ci ndigalam di bàyyi ak tereem mhm. jébbulu mhm. mu ne ko luy jébbulu mu ne ko jébbal sa bakkan ki la doy mhm. def ko seere sa diggante ak sa borom mu ne ko teg naa am nañ koy defee mu ne ko bu ko aree defee ba noppi su ma ca jógee dikk nettali la no ma koy defee mu ne nettali ma boo ko gisee nu koy defee mu ne ko su ko gisee dootuma siggi xool ko damay lam sal ne ko bi ma lee wut ba gisal dama laa bëgg a jébal sama bakkan ak danga àllaaxira daf la seere sama diggante sama diggante ak sama borom di déglu sa ndigal di wattu say tere lu ma digal ma def ko lu ma tere ma bakko mu ne ko yëgal suuf ma def ko ci yow magam mu yegg suuf mën ta mën ta bañ ndax bu bañee mën a ko waxee dof nga mën a wax du xam ne des na jëm marché kay yóbbante xam ne marché nga jëpp mu ne la jëndaale ma nangam mu di ko yóbbante njébbalam daa di yàgg suuf ne ko jox naa la sama bakkan def naa la seere sama diggante ak sama borom jébbal naa la sama bakkan àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def te looy tere du ma ko def Mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ko danga maa bëgg a nax Amadou. Mm-hmm. waaye faam naa sa bakkan ak sa bakkan dénk ki may wuti te gisaguma ko. tubarkal. <laughs> mu ne ko nag ki wuti. boo jógee foo jëm mu ko bi may wax ak yow. samay nopp sàññeeku na. لا من لا شك واحد ساجن كنا شام خل ديلو سينا من نفع تلو كنا لما مجا واحد مم بش بو ما يكش أبصرين لا نما يتك بوي يعمله سن بام هلا نما يوخ نقدر هلا يجيك أكيد أنت هذا نوتك أنت الله أكبر تبارك الله نونو كو واو keef ak baa loolu wuccax la walla lan la aw kasak la am lan la mën a koo xam ne ko xam naa ko moom mi ma koo xam ne koo xam naa ko mu ne ko sëñ bamba de moom feeñ lengal ndax bamba silbi bamba lee baa sëñ tay ba silbi sëñ tay ba kaloom lépp ay bamba la te dañuy jàngale di jàng mu dikk ci sëñ Bamba Sylla laaj kër ga ñu wan ko ko mu ne ko noo sant mu ne ko Sylla noo tudd mu ne ko sëñ Bamba la ñu ne mu ne ko noo yore sa diine mu ne ko weer weeru koor nat asaka su mu amee lu ma def ko benn juróomi ponk yi mu ne ko ni nga wax nuru na baax nuru diine waaye daal daa bëgg boole sa sama yeɓɓel la ko di jëfa di la jëfal mm-hmm. ba am sa ngërëm mu ne ko mun ma ko sañu ma ko mu ne ko mun ma laa ba ndax tur bi ak métier mi mm-hmm. mu demee gor garab bu mm-hmm. daanoo mu for carrière yëkkati daal te ba yenu dikk daane ci gannaaw kër ga bu demee ci àll ba saa yu gattax saa yu xa saa yu xeer saa yu xànc daaneel ba mu mel ne ay sàq yu tëdd ci gannaaw kër ga sëriñ ba ñu dàkkatal ci Touré. Mhm. te mu àndoon ak Cheikh Adama Gueye napp bataaxel di ko wër. sëñ Maxtaar Touré. sëñ Maxtaar Touré. Mhm. Cheikh Adama moom jëkk dikk ci sëñ Bamba si bi. Mhm. dégg fa gan. bu kéemaane. ku dul jëf-jëfi nit. Cheikh Ibrahima jógee ca àll ba. xet nga xeeñ ko. mu banamti ko. dikk xet ga nekk ca façon mu dem ca façon neex xel la xam ne jërëm ci ama wëg façon defar ñànd Cheikh Adama toog ba yàgg bu dikk xool fas la sell mu ne téema dikk mi sans fas wi dal ñu ne ko ndax lan mu ne dañ koo buub ba mu mel ne ruum yooyeen ci Cheikh ma raw ko yooyeen di ko jëmee ba Cheikh ma war a jëm ñu ko gan gi fi nekk de luy jóg jëfi di demal ci gannaaw kër gi di fi tëdd mel ne sàq yu daanu mhm. moo ko fi indi mu dikk fekk mu sukk fa fas fa mhm. ni ko noo tudd mu ne ko ah, am naa tur wu war a yëkkati waaye ki mu ko war a tuddi dañoo gisewut oh. soxna si nag daana moo yeb sa xaañ ci mhm. càmmeñ yi naa indi tur woowu đấy, ừ. số chưa mono ko ya mun bide sono ka ma ma jogi bu ngeen ko jaba ndé ngeen joba ndax mo bi da dëkk wax giso guma chạm fu may gisee jàmbaar giso guma jàmbaar mo xam ne chạm itam muốn na ăn bu nu ànd ak moon la ko ci ëllëg sa moo am tont ne ko boo ma toppan moon la sunu kaam ma soxla na ko doome na yow def ko bi yaa con, ko bëggan con nëbb muốn sant ko sëñ bi yàkkam te ñuy gisee di ko séenu ca ca mbedd ya ca tokkër ya maam Cheikh nee ba nu jubee Mbàkke Kajoor ma yaa ndaxtal Adama Gueye ñu jiitu ma joxe leetaru bataaxel ba mu jële ci sëñ Bamba Sylla ma tendeefal mu jiitu ma joxe bataaxel ba sëñ bi ni ko demal fere fere ye nekk ma gàttandu ma ma jub ko yegg soo raam gàttanduma tàllal ma loxo ma jox ko sigi jox ko loxo mu yëkkati ma taxaw man ne ma yiw dafa noonu feeñal nu ne ma ne ko dafa jot mu bàyyi ma ma yàggaat suuf mu sëgg fi suuf cëpp cëppal ba ay baaraamam neen Ibra Faal bala nga mos feeñal ma ma ne ko dimbali li bi ne fi nangu mu leen ba ñu dem sawara allahu akbar mu bàyyee ma foofee dem ca dongo ya ne ne ne as ndongo demal ca ceen soosee mu ànd ak moom yegg si nee ma topp ci moom Cheikh Adama ne ko du dóore de ndax nee na booba maa ngi wat sama simiñ wutal ko marum sagar yu ma koy lëggéeyale maa ngi wut jaas yi wutal ko marum sagar maa ngi yett maa ngi defar pëgg teg تين بو خا نه عرف بن بن تي ديغ با بويا ما شبو بدي فيخ لب ما يركو ترك فك سيرن بي ووت بشي مي ديكو نيب كي راجو لا يوا ما دارو خدو شي مي واندا يعرف يمي فانا واش يا رد اون كاتون ان يعني ام سيرن توبا امان ديكو شيخ ديكو كاتون رو ما ام شيخ يعرف مي ما دمن بتكي بت ما ما خرب جمان gaal xeejub kàppara mhm. mhm. mhm. ba nag bañoon naa këllub Cheikh Ibra boo bay këll sa bay ay ca defan nuuraake yóbbu ko njaarim joxe ko addiyee ñu delloosi ko daaray Baxdaar jox ko jëwriñ jëpp tudd Moor Bey Fali Njaay soxna am ak ma ko muje don ma ke je kile ma anan dole ro da ni miji ko wo mo raga da yalla ta di ko ta shekh ibrahim ni miji ko wo mo ye bulu de mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. jo haya de yo sang ya bot ya sang ya bot yo sang ya bot ya sang ya bot kuma ta jo ha da mo jo ha da kuma ta jo ha jang mo jo ha jang kuma ta lage lo mo jo la ko le lage lo ko la ya kuijigen mo jox dañ jam wax ko sëriñ Touba ñu yar la fa yaru l'islam soo matee maye mu boor la ku sëriñ Touba jur maa ku mu yar mu wutal la ku ñu def féete leen doomi sëriñ Touba sa ñam laat ak njabootam a ngi ci kër Baye Fall yi du kenn du ñaar sañcoon yi bu noonu ku yam baay faal yow danga nga di taadule waaye mbàkke mbàkke amut roy jaan ju jigéen amut ju ñuy ragal dana naan amut dangat jaan ju lamat nga jiidum ndëdd mbaa nga mocc mbaa nga yaakaar dee muriti Cheikh Ibra Fall la daan gis ku jaan man su nga këdd saaga jaan janday ne ko Cheikh xoo man <laughs> sëriñ nga wàcc nga dem liggéey. dégguma dama ko fekke wër wër na. Eh, Baye Abdou. Mm-hmm. comme ni ko sëñ Aliou waxee. Mm-hmm. dafa am solo. Mm-hmm. ci jotaay bi ñu namm ci bés bu yàlla sàkk nag. ñu ciy indi ay. borom xam-xam képp koo xam ne. yaa ngi dégg émission bi. te bu Cheikh Ibrahima amoon toolu ba àllarba bu jotee. nañu daan defal sëñ Fadou Mbambi loolu. nga war émission bi nga respecté ko. Mhm. Mhm. Mhm. te fulaal ko te fonk ko. tey fu Baye Fall ne. lii ab taawam daan wax nga dëkk fa di Baye Fall. sëriñu Baye Fall lu mu fa santaane demal ne ca. nit ñi nag am na ci ñooñ kër Baye Fall bu nuyoo. daje fa ak nit ñu dem ca sëriñam. ne ko seet taalibe bi gis naa ko ci sëriñ sàngam boo demee daa xàcc bëgg a jébbalu loolu la nit ñi xewal bi waaye lépp day wér ndax ku fi jógee sa politique toj daañu xam koo daa jox addiye ah tey ku dem fa yàlla la nga fa dawal lan rek la fay fekk mhm. ak murit du kalan ak murit du parti ak murit du kompaloo ak murit mooy gëm tey jëf lu baax te di ko wax seerew rekkat moom ba muy joxe boppam sëñ bi di ko ne loo bëgg wax ko ma day ko ñu dégg ko mu ne ko ma yàggale ci yàlla ak lu aju ci man mu ne ko kooki gudd di di yàlla bu doon nit ku koy xañ ba gis ko du ma moom mu ne ko koo kii mu tudd di yàlla moom mooy jox bati xol ma di ko xëy ba mu socc yow. <laughs> est-ce que. mu ne ko ana sa téere ak sa alluwa mu ko am naa lu ma àndaat lu dul alluwa mhm. te bu sëriñ. mu mhm. ne ko nu su di wuteeb sëriñ. ba gis ku ñu teg sëriñum jàngale mhm. fekk ña muy jàngal yor alluwa yoru téere nga bëggub sëriñ te yoroo alluwa yorub téere te te bëggub sëriñ mhm. mu ne ko dafa am lu ma yor lu alluwa bëgg téere te bëggub sëriñ mu ne wax ko ma dégg ko ñu dégg ko euh, mu ne ko sama nopp bi loo ma digal ma dégg sama bët bi loo ma won ma gis loo ma sant ma jëf ci samay cër jëfal la ko ci samay cër mhm. fekk sëñ bi denc na jaasi di ko ne accouchement ñu ko bucc ca biir génne ko ne ko tàllalal say loxo mu tàllal mu ñaanal ko mhm. yëkkati simiñ ba ak jaasi da teg ci loxoom mhm. Cheikh Ibra boole ko ak simiñu boppam ak jaasiyam mhm. yëkkati ne tekk di ko déglu sëñ bi ne ko loo fi jëlee loo fi jële wut ci yow la fa yem nu yem fa Cheikh Ibrahima ne ko lu ma fi jëleegul dafay amul. <laughs> daal di jëkkal xëy àll parce que dëgg waaye lu ma fi jëleegul dafay amul. Mhm. di liggéey. Mhm. man mii di wax ak yéen nag dama leen di wax wax jooj kenn gone na na dawalum xelam làmb mos ta toj te bëri amul. Mhm. làmb ja la ko tas. ku laaj xam ko. mbaa mm. mm-hmm. ko déglu mbaa ko war a gëm-gëm wet dina musu fee jóg ca yant bi la tàmbalee dëgg tigi sëti ñu ko daan def ba tey ñu ngi fi mm-hmm. mm-hmm. lu ma sa baax lu ne am na ko naan du noonu waaye nag yaara am e defe ne na la te duna defe ne duna te mu dina tarkal dama ne yaara am defe ne na la te duna defe ne duna te mu dina Cheikh Ibrahima moom la mu tuut ka mu topp nattam li wul kamu topp gëm a diwu ko wóolu na ko te wóolu na ko jox jëfam wóolu naa déglu ndigalam ëllëg lu mu am jël képp koy xebet Cheikh Ibra nag dikk yàmm di ko wuta xebet ak a xem bi nañ ilin xalaatal sa bopp sa diggante ak sa borom ba nga làmmal sa kanam daj tawar ak fa ngay waxe ba xam mas ngaa jéggi jéggi ka tax bu doy xalaat sa digganteeg bar sàqam <laughs> waaw waaw. njëriñ ba moom xebatul kenn. Mm-hmm. mu xatul kenn. Mm-hmm. kontorul kenn. Mm-hmm. gëm na ki gëm mu doole. wax na ak i taalibe nu ngeen di jëriñoo ci gëm. ñu ne ko loo nu digal nu def ko. loo nu tere nu ba mbaa loo tere du nu ko def. mu ne loo gëm te mu dëggu gëm ca boo ca xap xapalee gis ca looy ragal. tarkala. loolu la sartal ku yaat yaati mbaa nga yox yoxe nag. Mm-hmm. tadib bàyyi faal. Mm-hmm. ndax ñu lay soob ak sërxan. Mm-hmm. da ngaa gëmut woon te gëmm ca la gëm. sëñ Fallou Fall. moo jëkk a ministère Sëriñ Touba. moo di taw. Ừ. được moy tawam yiri may ni wadde mo jur được yiri may ni wadde mo jur sen wadde jur tono wadde jur moro an jur ban wadde ban wadde di jaay ablay fal ndar ablay fal ndar la ko bayam mor mor wadde tudde mor tola ko jur tax ñu na ko mor tola yiri mbani ko wadde ba mu gaañoo te di ceddo te attewu ceddo sëñ Fallou dem ci géej gi des ca soxna samu bàyyi Ablaye Fall nar takk doon na ko takk ko muy doomi bàyyam ñu mu bokkal ndey ak bàyyi mu tudd Bintu Sow ñu jox ko rakk sëñ fan mhm. mu taawloo ca doom bu góor tuddee ko Cheikh Ibra mu mhm. toll ci dana jàng faatu mhm. ñu denc ko sëgi ceem mu di ko métti lu Cheikh Ibra dëkk ndànd Moodu Moustapha taawam ba fàllu euh, dikkulee dem ci bàyyam ne ko fàllu woo ko waxtaan ak moom doomam ji la tuddee woon dafa gaañu mu di ko métti mu ne xanaa bëti xolam yemoo daa xoole baatin mhm. dafa waat ne ni ko denc biñ jëm see ci kër ñu tànk ndox gàtta du leen bëgg ñu roxal soog a dugg mhm. bi ñu daataa yegg si mhm. doom ji jóg na fa ñu ko suul dem dugg biir sawara te la ku bu dikkee tub sawaram maamam joojee ñu wax ji li mbañ <laughs> sampogo ajana te ñoko soni woni yak siwt ko am yoyo doom mu jiitulo fo mënta manqué wallahi wallahi nga di ko xool di ko gis xanaa waroo koo métti wallahi wallahi wallahi moom la sëñ mu doom laay di tudde Cheikh Bintu tabarkalla ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Cheikh Bintu Fall taaw roqee fa taaw roqee Fall taaw Cheikh Ibra waaw ba muy def ndar métti na sama ndey la ñu jëlee kër sama maam jandaan la mu toppi ko ah. yóbbaale ko nar moo ma ko wax mhm. soxna sax ma ko wax ah, moo ma ne maa yóbbaale woon sa ndey ba may dem kër sama tabax bii ñu ma tabaxal pantare bi féete tenku mhm. aj awa géey mhm. ab taawam mu woo ko mu ñëw mun a ko jox ko caabi néeg bi féete banda war sa nijaay Ablaye Fall nar mu ci mee moom pantare bi moom moom waa kër Adja Awa Guèye maa ngi ciy bu baax a baax sax ku mel ni Mamadou Ndoye Diagne ñëw na fi léegi ci jotaay bi moom itam mbokkum Adja Awa Guèye la macha allah maa leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di kañ képp ku képp kuy leneen maa ngi lay ñaanal la nga yaakaar ca yàlla yàlla mu mu tax mhm. nit ñëpp kan ku bëgg ko ne mhm. yàlla nga daje nga demal yàlla mhm. ñëpp laa ñaanal ndax ñaar ñu bokk maam bul ñaanal kee mucc mbaa tawtee ka ca des ay fabi sérim ne ko solo lii wutoo <laughs> booy ñaan rek ñaanal la ñëpp <laughs> ñaar ñu bokk laay baay ko daa rootal sëgg ba sëgg ba yàggal suuf bale mhm. taxaw di jukki ak yenoog sotti góor a ko dàq jigéen oh. dama fukki waxambaane mhm. dégg yëngu bi di sëñ bi xam mhm. amuñu xam-xam mën a jàll ba joxe seen bopp ñu ne ñu ne ñu ne sëñ bi ci bitti dikkal taxawu ko te jox na root mi soxna si yàgg suuf di bale lay root laa sëñ Isa mm-hmm. Isa mm-hmm. dem ba ci sëñ bi mm-hmm. ne ko dama bëgg a rafet xelam nekk ci def Cheikh Ibra ne ko demal waxtaan ak Ibra Faal def ko ndayi daara def ko bàyyi daara waxat na ko sëñ mën nu bay joxe boppam joxe sa bopp koy defee ما مشي خواخلون ما نسنت وما هي ما نسنت ده توم بيتش سيد بام كان كورا كان قام أنا مم بقول لك يا إيه، بوي دوجي سكر بدي شو من ما جاب له سكر أو الله أكبر كان لولا إنه هاي أخمن لي إلا كفهم amna sax lu ma la bëgg laaj foofu tuuti dafa mel ne mas na maa dégg nga wax ne bay Malick Ndiaye mas na am lu muy wax da waroo a jam ñu dab ko daa fabub tàngam ñu dab ko jox ko ne ko waral ci kii mu war a wajan mu xool ko ñàkki na yaakaar ci jinne gan déggal boo demee mhm. wax dëkk la nga dégg mu xam dëkk déggal nettali ña nga dendal ki nu yaakaar jinne lëf ci jënne mhm. nee na yëpp rek faaloog ñooñom ku leen di ngat safaan bay na oh. allahu akbar hmm? ba takkusaan mu ñibbi naar ba noddal sëñ bi ñu julli timis hmm. mu julli ba noppi geesu mbooloo ba hmm. ne ko nettali li nga doon wax noo oh. mu jaar foofu yi ma jaar kenu yaakaar noog la fi ci jënne mhm. gan déggal boo demee wax dëkk dëkk déggal wax ña nga den dal mhm. kenu yaakaar mhm. noog la fi ci jënne nee na Ibra Faal ak ñoom ku leen di nga safaan bay ñeel la bu ko noon sawara mu sedde ah, waaw waaw fukki doom ak ñaari na ko ñëpp dégg jàpp ko daana ci waxtaan niente to mica kau niente c'è to saskia niente to parte mu giuro niente niente fete shu mu dale c'è kau niente io non mutu de ko jam mm-hmm. ya c'è kau mu dale c'è to mu buja ko ne sa borom mm-hmm. di alla dum la digal def ko mm-hmm. lum la tere ba ko c'è ñaar elba lum dogal na la neex niente ye jeex bokkum la xarab saskia mu tamari c'è to mu buja ko na ngeen bokk pexe na ngeen bokk yéene na ngeen bokk la ngeen am niente ye jeex makom taaɗo ɓe toppa mone soppanteli en woɗon telen dimbaɗen telen mu juróom ñeent ñett feete suuf mu ne mbokkum dëkkaale bokk leen pexe bokk leen yeene bokk leen lu dul dëkk rekk leen boole mu ne na bu ko bañ dëkk leen boole bu ko xeeb dëkk leen boole bu ko yàpp loolu la waxan bu ko mas a wax ci suuf rëdd suuf sa donc it toon suuf sa dafay cawri alhamdulilah xool moom ku ne mën na ko. gannaaw néew bu ñëw doogul xool. kilifa gi moom jëmee ko ne jàkka di xool. waaye mag ñi. am na ñooñ daana ñu toog moom. muy waxtaan ñuy déglu. te booba nettali yokk. te nettali sëñ bu mag bi kenn ñemewu ko. mës naa yónnee suukar it ñu nettali. ndaw la dem ñu jafeel ko. mu del ci indiwut mu ne ko ana la ma la yónni mu ne ko daa dem fa mu ko daan amee mu yokk mënu ko ñàkk mu dab ko mhm. la mu ko daan sànke mën a du ko ca mu yokk mu ko daan jaaye mhm. mu ne ko lu mu la wax mu wax ak njëg mhm. mu jox ko lu toll noonu mu dox tuuti mu ne ki ma yónni woon nañu ko dam ñu dab ko mu bëgg a siisu defe na dañ koy yànkamtu ñu ne foog nga dëpp ndax sëñ bi ne bul yàgg dëppal mu dëpp dikk sëñ bi di xaalis di ko dolli mu bëgg wax mhm. sëñ bi ne ko amalug daal mhm. ndax xam ngeen lu ma leen bëgg defal xam ngeen lu ma leen bëgg a defal mhm. mag ñi ne sunu jàmm dong lay doon mbàkke mu ne fa ngeen daa roote di fa fekk ndoxum teen ba goj ba yam fa dootu leen dem ba ca teen ba fekk ko ci dëy ngeen di dellu kër ga di abit jokk <laughs> lu ñu jaayati am murit day wax dee lool na mhm. waaye du ne maa ngi dem ci kër gi wuti xaalis Cheikh Ibra kat nee na mhm. pajuk aajo sëñ Bamba mhm. moo ko def ci jaam ñi waaye bokk naa ca <laughs> ndax fa sama borom na nekkal nangu faa jóg ba ma sama borom ne àndal ak kii wane li ma ko ma xool ko sama ya fi yagan na ji di bulu ndu ma ko netta ni ma la chambo romo ne sama ya fa chine ma ne ko tang ma ko ba ha ma na pa jok ajo ma ne ko dang ma ya bal ma kine dem ne le ke ye lima sunu ko yo ba le da na no ja pa dal ajam la ne da je ni nit ni ak xam xam te gatt fan te gatt kawar gatt xam xam ko fa ci ajo mbokam dina toppe tangam may no ndigal nu yo ba le ko ne Jean borom ne ma koo mënta dindi ci moom. Mhm. doo mën a faj aajoom ma a ko danaa ko man ma ne wax ak ah, te mhm. ne ma wax ko sëñ Ba ma mu ne ma ah Jean borom lu mu wax da koy bind te du bind far te àddina du fu ñuy baagante. <laughs> Mhm. waaw ma ne ko man danaa ma ne wax ne ñu indee rëy ci gor mu ne ma wax ko nu soog a ma ne ko gor su la jox boppam. Mhm. wëcce ay bokkam. Mhm. ndax nag moom di dem. Mhm. tuuti ngeen di dox ñu joxoñ ko ne bu toroxee ñibbisi. nit ne yow topp ko nit mënalul morom ma dara. waaye boo fajee aajoom bu ñibbisee ñu toppi tànkam. ma ne ko. gor su la jox boppam ngay seet ba xam dëggu naam dëgguwul. da koy xiifal yan koy yalwaan na ko. safaan ko. bu gëjul mel dem ba la fa rek baakaaram yàlla nga defar ko. allahu akbar alhamdulilah. jërëjëf am na solo ci dongo yi. fu doog ma ne. ca bitim réew tey wut. Mm-hmm. yàlla na am te ñu bisi. amiin ñuy seetaan mën naa tàllal kon. bokk ci ñaan gi maanaam mboolem ko ñuy seetaan mën naa tàllal bokk ci ñaan gi. waaw ne bitim réew la ngay dàq yàlla na ko jàpp. te jëriñoo ko. ku ne ci réew mi mm-hmm. li nga fi yàlla. yal nasha ke bar khel banga man che di bli ni bga gen ni ke gen amin bar ke mam ni ke hospital ye yar na nyu ke nu ye bga de du shi yor shi nu ye bo ni nga kham na dang le na te che pe kham sa eta ne yal na yal sant kholi ni le fit na te ken mun ku dul yalla ba te kham na ko ne bunga yalla amin kon ku ne war naa baal sa mbokkum tàllu bi baal sa mbokkum jullit baal sa nit ne yow mm-hmm. yal na yàlla tuur xéewal ak jàmm ak juboo ci réew mi ak bitim réew fu ay ne tey naa yoo yal na nga jubal te juboo ngi ay naa yoo